dal ak jàmm ci seen télévision bi ngeen taamu Rafah TV moo leen di jox xibaar yu wér te wóor ak Rafah TV kumpa tàggoon ak yéen. centre d'enseignement et de formation professionnelle et technique ñu duppee ko soxna Aminata Kani Boussou di yëngatu ci tàggat ay ndaw ci métier yu bari rawatina ci wàllum ñëw mi ngi fii ci Touba Guédé Boussou waaw moment bii nit ñi toll nii nag couture lañu fi def mais am na yeneen yuñ ci mébét lu mel ne informatique ak transformation des produits ko wàllum céréales ak yu ni mel yooyu moom xam naa sax am na yuñ fi exposé actuellement mais moom it sees bi mu ngi daaru minam loolu noonu mais euh, moment bi moom couture moo fi amagum moom ci jamono yi ñu toll waaw. bile centre de formation nag état bi reconnaître na ko maanaam am na autorisation ci ginnaaw bu ñu la fi formé ba noppi duñu la bàyyi dañu lay topp. centre bi maanaam c'est reconnaître par l'état du Sénégal boo fi génnee diplôme yi ñu lay jox euh, attestation yi maanaam état moo ko moo ko reconnaître foo mën di dem boo présenté woo incha allahu rabbi bu soobee yàlla dinañ xam ne yow mi jaar nga ci formation boo xamante ni am na autorisation UF e bu Mbacké kon donc c'est c'est c'est reconnaître par l'état du Sénégal centre bi bëgg nañ ku fi nekk ba jóge fi boo jógee dañ lay topp topp bi ñu lay topp nag mooy loo di lekk ñun danañ ko yëg kon boo fi jógee ñun bëgg nañ topp gi ñu lay topp mm-hmm. saa boo amee sa ay xalaat soit nga am say mébét ak loo bëgg a taxawal ak ñun boo ñëwee dañ lay dañ lay accompagner ci loolu moo xam ci wàllum financement moo xam ci lu mu mënti doon dina la ci jàppale bu baax a baax bile centre nag naam bu fekkee ne ay ndaw ñoo fi yëngatu teewul dina dëppoo ak orma dëkk bi ak ndigalu Serigne Touba Cheikhoul Khadim centre bi wax dëgg li Serigne bi bëgg ci dëkk bi euh, soxna si li loolu la bëgg ñun ñi nga xam ne ñun la fi teg ñun loolu lañ bëgg jëm ci wàllum col gi ak ci wàllum euh, mes ak wàllum tatouage yooyu yëpp li nga xamante ni sëriñ bi da ko tere fii dañ ko fiy tere kon it bëgg nañ ko fii ñëw euh, am lépp loo xamante ni daal bëgg nañ boo boo jaaree ci boo ko jàngee dem seen kër da nga bokk ci ñi nga xamante ni yow yaa leen di gi mais kenn gi kili di ab jàngalekat ci centre bi liggéey bi ak jumtukaay yi ñuy jëfandikoo ngir rek amal liggéey bi léegi. waaw fii moom liggéey bi macha ndax am na ay saako ndax élève bu si nekk na ñu jàngal ñii am loo leen expliqué bi ñii si saako am na ñuy ñëwee tiisu que ku si ak leçon bu ñu la jox ak ñun la koy expliqué yow ko comprendre ci loolu ndax li ñu mën a defee ci kayit bi am na bu dee tiisi que du mën a normal bu fekkee saako la mooy gën a normal que bu fekkee si kayit bi la que bu dee tiisi si kayit bi la kon loolu moo tax mu kii ndax leçon bu si nekk ak ñun koy expliqué pour mu comprendre lii ñu fi avisé moom pour ñoom la ndax boo gisee élève bu fi ñëw parce que deux mois que day dagal boppam di ñëwal boppam que ñu fi yokki yëpp bi nga ñëw parce que ñi fi nekk ay 2 mois 3 ñoom ñëpp a ñëw instant bi ñoom ñoo ko doon defal seen bopp doo si dara ñoo commencé di ñëwal seen bopp parce que am na si ñoo xam ne ñu bëri si ñoom lu sol fii lañ koy ñoom ko ñëwal centre bi nag li ko tax a jóg muy taxaw ndaw ñi nga ñu ngi ciy woo bépp ndaw. ki nga xamante ni moom moo mébét lii te wax dëgg mënoon kaa investir ci leneen am ci yeneen ak yeneen yu mu ko mënoon def suñu borom xéetal ko mu jëmale ko ci wàllu jàppale ndaw ñi ak dimbale leen te lépp mu tënk ko ci ndigalu ku tedd ki Cheikh mun Mountakha kon message bi may laaj mooy bépp xale boo xamante ni yaa ngi ci diwaanu Touba ko wër ak foo mën di nekk ndax euh, sàkku xam-xam moom yaakaar naa fenn soriwul. Mm-hmm. kon donc message bi ñuy relancer xale rek mooy wax dëgg jamono jii ñu toll euh, metti na. ku ci ku ci suñu borom dimbale ba nga dëgmal sa sa sa sa jëmmu ci liggéey rawatina téyeer nga xam ne doo ci perte mm-hmm. kon ñu ngi leen di woo ñoom ñëpp ci centre bi am na jàpp jàpp ndal beeg lépp ngi fi nag moom mm-hmm. waaw njàppandal beeg lépp kon nu ngi nu daal képp koo xamante ni rek dégg nga suñu message wala soit suñu ci jàpp bu baax. centre de formation d' de formation professionnelle et mi ngi amal ay formation ci benn jàpp ñetti at laata ndaw li di jot li jaasaam. dal leen ak jàmm ci seen télévision bi ngeen taamu Rafah TV moo leen di jox xibaar yi wér te Rafah TV kumpa tàggool ak yéen